bu njëkkoon euh, jabet dakaar rek lañ ko daan fajee muy Abass Ndao moo amoon centre de prise en charge centre d'excellence léegi nag ñu ne euh, comme sénégalais yi ñi ci am jabet dañoo tas ci biir région yi il faut que ñu gën a décentraliser offre de santé bi ñu liggéey ci nag ak euh, laboratoire Sanofi créer ay centre de diabète et de d'hypertension artérielle centre yooyu mu am yoo xam ne dañ leen def ay centre d'excellence mais ñu xool ne centre yi nga xam ne ñu ngi ci hôpital régional Ziguinchor ñu ngi ci hôpital départemental Mbour ñu ngi fii ci Dakar centre yooyu dina permettre centre yooyu dina permettre nit ñi dootuñu soxla di déplacé wu di def déplacement ba Dakar pour faju ñu am diabète ak hypertension artérielle donc ñuy rafetlu geste bi nga xam ne euh, laboratoire Sanofi def na ko geste boo xam ne aussi dina permettre euh, plateau technique centre yooyu mu relever wu mais dina permettre aussi gën a oyofal paj mi parce que ñun ci suñu mbébét ak suñu xalaat mooy que nañu fexe ba euh, askan wi fépp fu ñu nekk rek mën war fa soxla Euh, waa kër docteur ñu mun leen ko woyofal loolu mooy suñu xalaat mooy xalaatu président de la république parce que ñaari wax la teg benn bi mooy li ñuy wax équité mooy fexe ba kii fejoo dakaar ak kii fejoo Ziguinchor ñu tolloo ci en terme de disponibilité offre de soins bi mais beneen bi aussi mooy fexe ba offre de soins bi nekk offre de soins de qualité mais pour que mu nekk offre pour que ñu leen faj ak qualité il faut que matériel de qualité il faut ñu former aussi acteurs yi te gis ngeen ne ci liggéey bi ñuy liggéey ak laboratoire Sanofi am na benn branche formation donc ñu ngi rafetlu vraiment geste bi nga xam ne laboratoire bee ko def boole ko ci par partenariat public privé di continuer di ñaax suñu personnel de santé ñuy gën am dégg-dégg ci askan wi gën a am dégg-dégg ci jàmbaatu malade yi pour gën leen mën rendre service. Euh, ministère bi mënul def lépp euh, liggéey bi dafa bari loolu tax muy lëkkaloo ak ay privé yu mel ni Sanofi pour ñu ñëw fekk si ko ci li muy liggéey pour gën ko ci jàppale. ñun nag ñu sawar ci lool ndax comme j'ai dit dañu am département boo xam ne looloo ko tax a jóg li ñu mettre en place mooy. ministère dafa mettre à disposition ay centres décidé euh, euh, tànn ci ay ay ay hôpitaux ne yii war nañ fa def ay clinique du jabet su ko defee malade am tension ñi am hypertension ak ñi am diabète ñoo xam ne fii war nañ fee mu a faju au lieu ñuy jóg ñoom ñëpp jëm Dakar euh, au niveau du centre antidiabète yi fajewu fa donc mu nekk lu am solo non seulement dañ dañ dafa dañ ne foog malade yi rester sur place faju mais dañu kon il fallait que ñu jox ñu renforcer capacité wu ñu fa nekk donc fi foofu la foofu lay jàppale ministère donc dañu def formation pour personnel médical bi nekk ci hôpitaux yooyu ñu identifié ba pare sanu Sanofi day renforcer plateau technique bi dañu jël ay matériel may ko service yooyu pour ñu gën a mën a diagnostiquer maladie mais ci ku ñu mu leen gën a mën a saytu tamit mais bu wee loolu weesoo li gën a am solo te ñoom ñi jaar directeur cabinet ak directeur général Sanofi yi fi jaar wax yëpp dafa am solo mooy prévention dañu xam ne maladie yooyu il suffit que ñu fagaru ci ñu teel ci jóg nit ñi duñ ko am sax bay xalaat di faju li tax ñun ñuy mayee appareil yii di renforcer système bi buñ ci amee ñaar ñetti ci benn service mais dina wàññi coût bi donc ñoom seen objectif du sax vraiment gagné ci xaalis seen objectif mooy bu ñu fayloo malade bi dina tax ñuy mun a jënd bandelette yi sans directeur de cabinet interpellé na les les responsables des structures pour leur dire bu lii ñu mayee parce que ñun joxe nañu des bandelettes au départ euh, pour ñu mun ko utiliser ça leur permet ñu am tuuti xaalis xaalis boobu daf leen war a permettre ñuy jëndaat bandelette bu malade fayee ñuy jëndaat donc dañuy réduire coût yi ba mu mun a accessible et ça c'est la politique ñoom li ñuy doxalee même ñun ñi nga xam ne laboratoire bi ñuy liggéey dañuy defar garab dañuy imposer pour que garab yi bañ a cher donc loolu du sax ñun suñu rek dañuy participer rek mais loo xamante ministère moo ko imposer ñun tamit ñu topp seen gannaaw di leen ci jàppale.